waaleykum salaam wa rahmatullah. fàttali tur bi imam. Euh, Medoune Mbaye. te yàlla dogal na nga fekkee bés bi nga xam ne dañoo bëgg a constitutionnaliser nga xam ne mooy zakat bi lan mooy sa impression ci bés nga fekkee. waaw alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa daje bi am na solo ndax ci liñ doon waxtaan muy wàllu azaka mbir la moo xam ne. lu yitteel borom bi la subhaanahu wa taala comme niñ ko xamee rod na ci alquran lu bëree bari ànd ak ponk bi gën a rëy gannaaw bi ñu xamee ne ponk bi jiitu mooy seede ne yàlla kenn yontu yàlla moo ko yónni bi ci topp di julli bi ci topp di azaka azaka toujours muy ànd ak euh, julli kon nag lu am solo la tey ji waxtaan bi jële nañ ci ne azaka jullit yi war nañ ko xoolaat jàngaat ko ngir jëfe ko ni ko suñu borom subhaanahu wa taala bëgge est-ce que yéen imaam yi ca dëgg-dëgg yéen nekku leen frein pour ñu xam li nga xam ne mooy zakaat. déedéet imaam bi mënul nekk frein ndax imaam li ko war mooy jottali euh, njàngaley lislaam te njàngaley lislaam def ci bokk azaka boobu azaka ni mu nekk farata noonu la nekk itam lu jëm ci askan wi. boo gisee ma laaj loolu dañuy ñëw ci jumaa yi ngeen jiite ay junni junni nit di leen làkk arab te ñoom dégguñu arab waaw jaadu na imaam yi ñu wax ak euh, nit ñi ci làkk bi nga xam ni moom lañu dégg rawatina ci lu aju ci seen dundin lu ñu soxla lu mel ni azaka dafa laaj ñu leeral ko ci làkk wi nit ñi dégg leeral ko ba nga xam ne nit ñi dinañ xam nan lañ koy génne ak tamit fan lañ koy jëmee. yow yaa ngi fi teew ci turu jamiyatu rihab. waaw ñun ñu ngi fi too teew ci turu jamiyatu rihab li tanmiya al bashariya muy association rihab pour le développement humain. di association boo xam ne tam li ko euh, tax a jóg mooy suqali doomu aadama te bokk na ci liy suqali doomu aadama ñu lijjanti wàllu nekkinam ñàkkam ñu jële ko jële ko ci ñàkk jële ko ci ndóol jële ko ci euh, tàllal loxo ba mu dem ba mënal boppam mbooloo boobu man euh, xamuma ko daal lan moo tax xanaa du ngeen def ay activité muy jaar ci télé yeeg rajo yeeg yooyu waaw mbooloo boobu mbooloo la boo xam ne ñu ngi ci ay activité ñu ngi ci ay yëngatu yoo xam ne ñu ngi koy def Euh, waaye ba léegi itam dafa laaj ñu gën a fexe ba nit ñi gën ñu xam ci loolu la ñu nekk incha allah. looy tàggoo kon li ñuy tàggoo mooy ñu ngi euh, rafetlu jataay bi vraiment wax dëgg yàlla forum bu am solo la te fexe tam ba mu gën a yaatu comme niñ ko gisee pré forum la forum baa ngi ñëw forum boobu bëgg nañu incha allah ñu teewaat ci joxe ci suñu contribution.